mbokki internet bi ab xibaar bu tiis euh, lañ leen xëyee euh, kulli nafsin saa'ilhatin mawtin muy bakkan bu ñam euh, dund ah, di nga ñam génn àdduna ak génnuk àdduna soxna Momy Seck ne woon na soxnaas ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany borom Sen TV borom Zik FM moo génn àdduna ni ki tey ci suba fële Paris la France gannaaw eh, feebar bu yàgg bi mu defoon moom soxna Momy Seck waaye itam nekkoon ki nga xamante ne eh, mag la ci Wally Seck eh, di waykat bu mag boobu ñu naan Faramareen bi waaye itam nekkoon jàppandalu ki nga xamante ne mooy borom këram ci li nga xamante ne mooy liggéey bu mu sumboon ci wàllu ko télé bi ak wàllu ko commercial. nekkoon directrice commerciale euh, bu D'accord depuis 2014 waaye ci gannaaw loolu la euh, jiite woon li nga xamante ne mooy euh, Zik FM wala sax Sen TV moom Momy Seck ni ngeen ko xamee feebar moo ko yóbbu France gannaaw ba mu fa nekkee doon faju feebar bu yàgg ci la génn àdduna ñu jot nag xibaar bi ni ki tey ci suba. nekk itam mag ci ki nga xamante ne mooy Aline Seck euh, mi euh, jël soxna bu yàggul ak ki nga xamante ne mooy Awa Baba Thiam waaye itam euh, ki nga xamante ne mooy soxna Bintu Seck ak ñi nga xamante ne ñooy Mohamed ci sama kàddu ñi ngi koy jaale ki nga xamante ne mooy Fatou Diaga ñu naan ko Kiné juuf mu di eh, yaayam ak eh, ki nga xamante ne mooy wali Seck ak képp ku nga xamante ne rek eh, yaa ngi ci monde de la presse rawatina suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk Zik FM ak Sen TV ñu ngi leen koy jaale moom soxna Momy Seck mu fi bawu niki tey ci suba ci sama kaddu ñu ngi leen koy jaale di ñaan yàlla suñu borom bi yërëm ko jéggal ko ay bàkkaaram xaare ko àjjanay firdawsi ak bépp way dawlu